liñ ñu fi fésal bokk na ci ne ah ONG li nga xamee ni moom la ñuy investir ci si réew mi bari na toll na daanaka ci lu ëpp 700 milliards mu doon xaalis bu takkoo takku foo dem nag ci réew mi fekk leen fa ci euh, domaine yu bari ci santé ci éducation ci euh, euh, formation ak domaine boo xamee ni rek ñor na. askan wi ak njariñam loolu lañ doon ñëw tey fésal ci rapport boo xamee ni li ñu bëgg mooy at mu jot ñu génne ko ndax daf ñoo war nag ñun nga xamee ni ñooy liggéey ci ONG yi ak ñun ñi nga xamee ni ñoo ciy gëstu euh, at mu jot ñu waxkat kat euh, ñi nga xamee ni ñoom la ñuy liggéeyal lii lañ fi def lii la lu lii la liggéey Euh, lii lii la am ci jeexital lii moo ci ay jafe-jafe loolu suñu warteef la moo tax ñu bëgg at mu jot léegi rapport bii ñu génne ñu génn ñu fesalaat ko euh, présenté ko te fexe it lépp loo xamee ni euh, laaj na ci suñu diggante nguur gi ci ay weccee xalaat ci gën a dëppale suñu liggéey ak priorité yi nga xamee ni moom la nguur gi teg ñu fexe cee gën a góorlu